sur le plateau matinal Allô Sénégal dañuy woyal ma dalal Pape Malick Thiam Pape Malick maa ngi lay nuyu dalal lay fay Aïcha maa ngi nuyu aussi tamit euh, bépp téléspectateur bu ñuy bu ñuy seetaan ce matin da bu ñu sama bëggoon wax bu ñuy seetaanaat parce que depuis depuis sept heures maa maa ngi fi laa bëggoon wax quoi. dalal ak jàmm alors euh, dañ koy tàmbalee ak ki nga xamante ni mu le président Bassirou Diomaye Faye. Mm. Euh, fële ca Ghana ak euh, fële ca Nigéria. waaw noonu la président Bassirou Diomaye Faye entamé na benn voyage boo xamante ne mm. démb mu ngi woon Nigéria tey jii vendredi mu war a dem fi nga xamante ne moom moom mooy Ghana la mu wundu voyage boobu nag. Euh, moom moo di euh, safonte ak ñi nga xamante ne ñooy pays anglophonie parce que mënuñu ay anglais ñoom ñoo lay coloniser ginnaaw bi mu jugee Côte d'Ivoire Euh, voyage boobu nag euh, waxtaanee li nga xam mooy di ressources pétrolières ak gazières nan lañ mën a def ak diggante ñaari dëkk yi ba ñu mën a euh, am ay exportation ak ay importation si diggante ñaari dëkk yi loolu bureau information bu gouvernemental bu nekk palais moom moo ko ñoom ñoo ci ñoom ñoo ci ñëwaat wax tamit ci lu nga xamante ne moom mooy relation yi nga xamante ne Sénégal ak Ghana seex nañ ko notamment nan Nana Akufo Addo mooy bi le 2 avril muy fii woon wax ni delloo njukkal Bassirou Diomaye Faye le mu dem fi nga xamante ni moom moo di euh, moom moo di Ghana euh, ñuy wax ne Sénégal euh, rôle bu important la joué si fu nga xamante ne moom moo di CEDEAO loolu tamit tax na ba nga xamante ni dem na ci ñaari dëkk yi nga xamante ni ñoom ay géant lañu ci wàllu koom-koom ndaxte boo jëlee exportation yi nga xamante ni dëkk bi di Ghana mu ngi koy def ci Sénégal mu ngi toll ci 43 milliards si suñu xaalis si atum 2022 Euh, ci li nga xamante ni si zone euh, CEDEAO bi Nigéria mu ngi toll si 331 milliards ci wàllu exportation Côte d'Ivoire 72 milliards euh, moom la ñuy amal ci dëkk yu nga xamante ni moom moo di CEDEAO Sénégal lu muy jël di koy importer gana mu ngi toll ci montant 21 milliards si suñu xaalis ci deux mille 2022 bi loolu bureau information bu nekk pale moom ñoom ñoo ci ñëwaat. bu nu jógee ci loolu ñu wax ci Ousmane Sonko. moom nag moo ngi défendre les états de l'AES. waaw Ousmane Sonko ak nga xamante ne moom euh, moo di euh, Jean-Luc Mélenchon di waa France euh, insoumise opposant bu nga xamante ne moom nekk France démb ñoom di ñu tase woon fi nga xamante ne moom moo di Université Cheikh Anta Diop ngir waxtaanee lu nga xamante ne moom moom moo di actualité Afrique ak fii ci Sénégal lu ñu wax nag Ousmane Sonko moom moo ko. ko njëkk tàmbale moom lu mu wax nee na euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy dëkk yi état du Sahel dañ leen a war a euh, respecter euh, ndaxte ay africain lañu comme dëkk yëpp état Sahel yi nag ñoom ñooy Mali Burkina Faso ak ñi nga xam ñoo di Niger bu ñu fàttali ñoom ñoo amal ay coup d'état mhm. ci at notamment at mi ñu génn ñoom nag dañu génn ci fi nga xamante ne moom moo di CEDEAO mais c'est pas encore officiel mais Ousmane Sonko lu mu wax moom mooy euh, dañu war a jigante ñu nag euh, dëkk yu nga xamante ni moom mooy dëkk yu ñu woowee les états de la l'AES mu continuer di wax ne euh, moom Euh, d'accordul ak affaire mbiru coup d'état euh, démocratie moom la ñuy moom la ñuy wax wante ngir négocier ci wàllum koom ngir waxtaan tamit ci wàllu politique ñu déggoo il faut que état yooyu ñu respecté leen te tamit euh, bañ a topp ñi nga xamante ne ñoo di européens yi occidentaux yi nga xam ne mm. dëkk yu nga xamante ne amuñu fa lii di mm, intérêt moom moom nee na dafay bañ ngir di condamner dëkk yooyu noonu di leen diaboliser ci seen wàllu politique loolu tamit tamit euh, moom mooy li nga xamante ni wax nañ ko ci euh, diggante euh, fi nga xamante ni moom mooy diggante Ousmane Sonko at euh, Jean-Luc Mélenchon fële ci université Cheikh Anta bu Ndakaaru dañuy des ba léegi ci Ousmane Sonko ndax moom ba léegi mu ngi plaidé ci li nga xamante ni. Mhm. mooy ñu abandonner le franc CFA. waaw ci même ndaje bi ba léegi Ousmane Sonko ak Jean-Luc Mélenchon ñoom ñoo ko amaloon waxtaan nañu fay thèmes yu bëree bëri nan la ñuy def ba Afrique am indépendance nan la ñuy def tamit ba nga xamante ne dinañu suqaliku ci wàllu koom. Euh, wàllu dundin euh, ci lu nga xamante ne moom moo di monnaie bi français affaire homosexuelle di tamit wax nañ ko mu yaa ngi gis euh, coow lu mu lu mu juragul ñoom Ousmane Sonko ne monnaie duñu duñu bëgg a euh, pas ci daar daar ni génn ci lu nga xamante ni moom moo di euh, franc CFA mais suñu sañoon euh, ñoom ñu yor beneen monnaie bu nga xamante ne mooy monnaie boo nekkul franc CFA ndaxte franc ndaxte monnaie franc CFA mone boo xamante ni français yi ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko teg boobu ba léegi te daanaka genre noté la monnaie dañu bëgg a génn mais génn mais sortie prudente la ñuy la ñuy def ci ci mbir mi. am na ay économistes yoo xamante ni yu bëre wax nañ ci ñoo xamante ni ci Afrique la ñu nekk euh, te Afrique dafay lepp euh, problème mooy Afrique dafay lepp ci devise xaalis boo xamante ne euh, maîtriser ko te loolu dafay jur li nga xamante ne moom mu di jafe-jafe ci wàllu koom mu ne ñu demee ba nga xamante ne homme politique bu wax ci Afrique euh, ci wàllu monnaie Afrique dañ ko war a ñu diaboliser ko partout loolu dafay wane rek mbir mi jur na coow wante Sénégal ñoom euh, nu ñuy taxawee moom moo di euh, ñu ci lu nga xamante ne moom moo di franc CFA mais mënu personnellement en solo génn dem taxawee ne lu ñuy def rek moom mooy li nga xamante ne moo di essayer génn. Euh, de façon prudente euh, ba nga xamante ne du nekk du nekk génn génn fracassante mhm. voilà am na solo jërëjëf Pape Malick ñu mm. jaajëfal euh, bu baax a baax dañuy rebondir un peu par rapport au président Bassirou Diomaye Faye et ses voyages mm. à l'intérieur de l'Afrique justement waaw boo c'est très bien pour dem diplomatie Sénégal parce que Sénégal leadership la fi fi nga xamante ne en fait leader la fi nga xamante ne moom mooy CEDEAO mm. que président bu ñu fal ginnaaw bu nga xamante ne visite na na pays voisins yi. ak Côte d'Ivoire. mu dem si pays yi nga xamante ni ay géants économiques lañ si Afrique que soit mu nekk Ghana wala wala Nigéria maa ngi koy rappelé sans que exportation et importation c'est à coup de milliard donc c'est très important et puis euh, économiquement c'est am et puis dëkk yu yu yu yu stable démocratiquement donc amuñu problème mu coup d'état amuñu problème mu wàllu gouvernance bien que Nigéria sax économiquement il souffre mais Ghana par exemple euh, mm-hmm. voilà c'est c'est très bien et puis bon peut-être tamit dafay rendre un peu parce que Nana Akufo-Addo président ghanéen ñëwoon le 2 avril euh, prestation serment bi après mu seeti ko promesse la woon donc euh, peut-être aussi dina gën a raffermir li nga xamante euh, euh, moo di nga xam la visite de Jean-Luc Mélenchon ouais. ici au Sénégal daal dina beaucoup de polémiques mais néanmoins ponk yi nga xamante ni Ousmane Sonko yëkkati na ko fa am na solo mais naka nga gisee le fait que mm-hmm. muy défendre les états de l'AES maanaam le Mali le Ghana ak le Niger ñoom ñi nga xamante ni euh, jot nañu am ay coup d'état mm. waaye ñoom ñoo génne woon aussi je pense benn communiqué daal génn li nga xamante ni moo di CEDEAO dëgg la pour man en fait c'est normal et puis euh, c'est salutaire le fait que moom en tant que premier ministre du Sénégal mu apporte solidarité am dëkk yu nga xamante ñoom ñooy les états de l'AES que soit Mali Burkina Faso wala Niger mm-hmm. loolu lu am solo la ci lu nga xamante ne a booloo nekk nekk nekk benn loolu moom mooy li nga xamante ne moo am solo te loolu moo war a nekk beneen bi moom mooy euh, état yooyu dañu contre ñi nga xamante ni ñoom ñoo di français yi mhm. sous prétexte que français yi ñoom ñoo coloniser et puis bu leen mënti daal français yi la alors que boo xoolee profondément c'est à discuter mhm. parce que euh, mënuloo euh, jàpp ne par exemple état du les états ñoom euh, beddi nañ français yi mais bu ñu beddee français yi dañuy jëm jël euh, bootu ci beneen puissance moom mooy la Russie te mm-hmm. dëkk yi yàgg nga ko dégg ñu ne ñoom ay intérêt rek la ñu am amuñu ay relation personnelle wala kii moo ma neex wala damay lëkkaloo ak yow dañuy am intérêt sa dëkk ñu ñëw sa dëkk euh, amuñu intérêt doo gis c'est comme ça il faut que nit yi ñu comprendre ko ñu comprendre ko ñu mm-hmm. comprendre ko mm-hmm. noonu et puis c'est bien que Ousmane Sonko euh, am apporter solidarité ñi nga xamante ni moom mooy état de de l'AES heureusement bu mu waxee ni il est contre ñi nga xamante ni ñoom ñoo di moom moo di affaire ay coup d'état heureusement bi mhm. mu ko waxee parce que yaa ngi gis bu mu waxee dafay annoncé def tournée ci dëkk yooyu noonu mais ça c'est autre chose quoi. Ouais. moi suis pas moi suis contre le fait que le premier ministre du Sénégal se rende dans ces pays là pour def benn benn benn parade ça je suis d'accord parce que bon quand un, un premier ministre du Sénégal se déplace là-bas dañ koy accueillir comme un plénipotentiaire ouais. de l'État du ouais. Sénégal donc le premier ministre mënuma comprendre par exemple état yooyu amuñu benn légitimité amuñu tamit benn légalité ndaxte élection falu ñu leen mhm. concourir ñu benn yoon coup d'état la ñu jëlee par les nekk au après Sénégal qui est reconnu démocratiquement et yaa ngi gis euh, parce que euh, comment transition démocratique bu ñu def la dernière fois nu mu rafetee et ngay dem di allié ak ñoo xamante ñoo di putschiste le fait que nga def le discours c'est différent ak nga dem di allié wu ngay photo ak xaar li nga xamante moom moo di moom moo di coup d'état euh, bu ci loolu ñu wax ci coowalu franc CFA. ba tey mhm. Ousmane Sonko mu ngi dëggal di fësal euh, li nga xamante ni loolu la yàgg a wax ni que euh, li ñu bëgg rek mooy ñu changer mhm. suñu monnaie mooy man sama question mooy est-ce que le Sénégal a tous les moyens wala boog est-ce qu'on a tout ce qu'il faut li nga xamante ni moo di franc CFA ak am aussi li nga xamante ni moo di suñu monnaie bopp soo bëggee xam amuñu moyen pour génn si franc CFA pour l'instant parce que Sénégal amul économie bu solide bu nga xamante ne comme le Nigéria nga xamante ne yor na benn devise boppam wala Ghana yor na devise boppam euh, boo xamante ne mën na sous-tendre euh, poids économique par rapport ak à l'étranger pays yi nga xamante ne jot nañ ko fi def Guinée exemple bu patent la boo xamante ne ñoom dañu génn bi ñu amee indépendance en cinquante huit après génn dans la foulée am seen monnaie bopp mais gis nga économiquement c'est très friable bien que Guinée am nañu euh, ressources naturelles par exemple c'est le premier euh, pays producteur de bauxite au monde mais euh, corruption bu comme tous les ba pare aussi tamit seen monnaie bi c'est très bon c'est relativisé mën nañu wax ne am na ay devises yoo xamante ne mu ngi trésor français ça on est d'accord ce n'est pas normal euh, euh, man doon naa am fierté que Afrique ñu ni Sénégal monnaie bi moo ko mool boppam muy frappé euh, fi nga xamante muy frappé muy frappel boppam monem mhm. ça c'est pour man africain bu nekk war nga défendre loolu mais il faut être réaliste aussi bu fekkee Sénégal dafay génne créer monnaie mun naa daaxoon pays CEDEAO yëpp ñu génn pré créer seen propre monnaie nga xamante ne dinañ fort économiquement bu fekkee Sénégal kese moom a génn heureusement aussi encore une fois que moom lañ mën a chemin yi ñu mën jaar pour jéem ko abandonné bu fekkee Sénégal dafay génn seul euh, di adopté moro boppam pour man loolu bon c'est pas c'est pas ba ñoom si biir campagne électorale bi ñu rëññeewu si ne ne euh, waxuñu loolu donc nañ essayé nu ñu euh, nu ñu ko xoolaatee mais loolu pays CEDEAO yëpp ñu lëkkaloo euh, xaw ma nag parce en amoon na benn projet éco boo xam ne nañ ko fi mhm. dépoussière ko un mais xaw yan pression moom moo tax ba ba gars ko ba léegi amul amul suite mm. mais mais vivement que ñu dem ci lu nga xamante ne moom moo di projet éco boobu que pays CEDEAO yëpp ñu tasee pour am une monnaie commune parce que occidentaux yi aussi mën wax commercialement ça les arrange mais ñun on s'en fout que ñoom ñu mu arrangé a sàmm économie boppam am na Zulekaf yaa ñu ngi ko fi doon ñu ngi ko fi doon teg di ko wax il faut que Afrique ñuy commercer seen biir pour mën mhm. développer tant que mhm. africains yi ànduñu di mhm. commercer seen biir du ñu mën a def le le le poids face à l'Union européenne du ñu mën a def le poids face au Japon du ñu mën a def le poids face aux Américains donc il faut que aussi tamit ñoom ñëpp ñu ngi essayer di lëkkaloo Mhm. Euh, dafa am ay plus grandes banques. Mhm. du monde dañuy def pression ak les plus grands financiers du monde dañuy def pression si dëkk yu nga xamante ne moo nekk Afrique pression moom mooy lan am nga investissement si benn dëkk waaw bu fekkee ne da nga dem si monnaie wala da ngay promouvoir monnaie bi wala dañuy def ay coûts financiers dañuy retirer wala quelque chose comme wala investissement yi la jox dañ koy kii affaire yooyu moom moo tax mais il faut pour moi c'est volonté bi déjà mu ngi fi parce que am na ay intellectuels yu bëri yoo xamante ne wax nañ si mais il faut que am courage de tes idées. Mhm. pour nga mën si génn su fekkee amuloo courage de tes idées ay wax la rek yoo xamante ne. il faut que nga am courage et que aussi mu am benn volonté commune. de tous les pays d'Afrique. ñu mhm. booloo ànd doon pour mën a vraiment am li nga xamante moo di seen. mooy bopp merci beaucoup Pape Malick. Mhm. Euh, euh, moo di vendredi tey on va parler du bu bàkk bi noppee ñu dikkaat ci plato bi